images. C'est bien s'il en fait plein. Donc il raconte des choses et notamment sur les filtres. Quand, euh, en studio, faut tout filmer. Euh, et puis il faut qu'on commence, à vous accompagner aussi dans toute la stratégie et la montée en sur, le développement de l'audience sur les réseaux sociaux. Patrick, tu nous débouches le champagne c'est bien. Mmh. Je vais arriver de la musique. Ça va être super. Je dis, si on fait disque de platine sur ton prochain disque en France, on vient au Sénégal faire une fête avec toi. C'est-à-dire combien de disques exemplaires en France Ouais. J'ai confiance à, ma nation, j'ai confiance à mes fans, j'ai confiance à, aux à la diaspora. Et, à l'équipe ici et, a et à ton talent. Moi, j'ai confiance en ton talent. Mais j'essaie, j'ai confiance en moi Ok, cool. Bon, bah, super, c'est un beau challenge. Allez, santé à tout le monde. À tous. À tous. en plus, moi, je suis jamais venu au Sénégal. Ah ouais Mais ouais. C'est Guy, il m'invite jamais. ne waa Leur waa Believe Day. ah oui kontaan naa ko kontaan naa ah ñaar kontaan naa maa ngi gërëm sant maa ngi sant yàlla bu baax a baax di gërëm ci sant ñaari waajur di gërëm Sénégalais yi mooy porté suñu communauté africaine bi ma leen di gërëm bu baax a baax waaw sama ñëw tey nag ah du leen dul ñëw te euh, contrat bi. officiel signé naa ko Wally Ballago Seck am na maison bu diis signé dinañ ko wan dinañ ko am ci leeral yu bëri bëri bëri bëri am ci touche pas mon boss émission boobu am na dara ñu ko dañ ko seetaan ci C8 ci dinañ ci xuus ci kanam dina mais nag ñaar a naa ci lu ma xamul de. Hmm, maison disque du foo de. digg naa digg naa lu ma xamul de. non dina baax incha allah. fenn nag yaakaar naa fenn bu ci des dina baax. yàlla baax noonu lay demee.